Allo Dakar TV tey ñoom mbégte di dalal sëñ Modou Habib Diouf di set ci sëñ Thierno Diouf Lambaye ànd ak ay ay ay naataango ku ci mel ni Moustapha Falilou Ndiaye préparé benn journée le 18 mai bii di ñëw journée boo xam ne thème bi ñu ngi ko tuddee ndono mag ñi ngir ndaw ñi euh, sëñ Moustapha Falilou Ndiaye mi nga xamante ni membre comité d' organisation bi la nekk tamit conférencier parce que ne def benn conférence bu mag ci bés bu bésu le 18 mai bi incha allah sëñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax yéen waa Euh, Allo Dakar TV. Euh, euh, mhm. mhm. waaw ginnaaw ba ñu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam doole jébbal suñu bopp Serigne Touba Xaadimu Rasul bis bii nga xam ne nii tamit moom la waa kër. sëñ Thierno Diouf tahawal, taxawal euh, ngir fàttali ko ci te sëñ Modou Abib mii ma toogal euh, nekk coordinateur bi nekk ki nga xam ne taxaw bis bi dañ koy jàppee mu bokk ci bis yi nga xam ne moom la ñuy maanaam feeñale ñi nga xam ñu ak Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba ba Serigne bi gërëm leen mag ñi nga bi Serigne bi wootee euh, mu woote muy defar doomu adama yi bañ mën mane ak seen borom mak ñooñu. ñoo ñoo ñoo ko wuy si bañ ko wuy see mu defar leen bañ defaru samp leen tamit ñoom it ñuy defaree tey mag ñoo ñu yoon woowee ñu jaaroon ah, moom moom lañ fas yéene jamono bu ne ah, di ko leeral ngir ndaw ñi gën leen a mën a xamaat gën a mën a toppaat seen yoon mag ñooñu nag tey kii ñuy defal bis bi muy Serigne Thierno Diouf Lambaye bokk na ci ñi ci gën a ràññeeku bokk na ci ñi ci gën a liggéey bokk na ci ñi ci am jagle yoo xam ne sax ñu bari ci ñoom amuñu ko kon solos bis bi daal bu ma la ko dee tënkal mooy leeralaat kan mooy Serigne Thierno Diouf Lambaye ndax ma ñu dundalaat ñu dundalaat ko ba mel ne moo ngi jamono ndax borom xam-xam yi dañuy wax naan anam euh, euh, képp koo xam ne maanaam fàttali na nit ku baax daa mel ne tegaat maanaam tegaat na nit ku baax kooku man arraxa waliyan faka annama ahyaahu maanaam ku nettali wala nga fàttali wala nga wax mbiri nit ku baax mel na nit ku baax kooku tegaat nga ko ci kanamu askan woowu muy dund ak ñoom ba xam mooy kan kon solos bis bi daal mooy ñu xamaat kan mooy Serigne Thierno Diouf Lambaye ak nan la àndee woon ak Serigne Touba Khadim Rasoul ak nan la liggéeyee la Serigne bi. salaamaaleykum yow nag conférencier nga. parce mhm. que mën nañoo xam ban thème nga fas yéenee maanaam ci bés bi. waaw incha allah euh, li tax a euh, jug bis bi rek muy solos bis bi incha allah ñun ci ci loolu ci la ñuy maanaam gën a allah ci biir euh, conférence bi nga xamante ne ni war nañ ko jàllale ci bis bi muy. maanaam leeral dunduk Serigne na Diouf Lambaye ak tàmbalim ba ni mu fi jógee leeral ay jaar-jaaram leeral nan la doon liggéeye leeral wan yoon la taxaw woon ah, ci ci yoonu murit leeralaat tamit dañ fa leeralaat tamit Serigne Aliou Diouf Lambaye mi nga xam ne moo nekkoon way wayjuru Serigne Thierno Diouf Lambaye nga xam ne ah, ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da dund ak Serigne Touba liggéeyal ko muy loolu di taw feex gu rëy waaw li nga xam ne moom la ñenn ci saxaaba yi amoon ku mel ne Abbas ak Abdullah ibn Abbas loolu la Serigne Thierno Diouf Lambaye am ak ak Serigne Aliou Diouf Lambaye ci Serigne Touba muy bàyyi liggéeyal doom ba jóge fi doom bàyyi liggéeyal Serigne ba jóge fi doom tamit liggéeyal Serigne ba jóge fi kon Serigne Aliou Diouf tamit euh, faaw ñu tudd ko ci bis bi incha allah. mbokk yi comme leen ko waxee rek ñu ngi toog ak euh, sëñ Modou Habib Diouf di seet ci sëñ Thierno Diouf Lambaye euh, jiite kuréel gu mag bu ñu na euh, jannatul ihsaan hmm. yàgg yëngu ci maanaam luy boole luy dajale luy dajale cheikhu Serigne Touba yi waaw hmm. ah, sëñ bi waaw hmm. ah, bismillah ñu ngi bëggoon a xam euh, yow tamit lan moo tax euh, organiser wuloo conférence yam ci mbaa nga organiser jàng yam ci waaye nga taxawal bés boo xamante ni yaa ngi ko bëgg taxawal le 18 mai pour fàttaliku jaar-jaaru sa maam. ñoo ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi nuyu seetaan euh, waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci ñi nga xam ne ñoom lañ nu fekk si tey ñu dalal ñu muy Allo Dakar TV ñoo ngi leen nuyu baax a baax ci dalal bi kontaan ci baax a baax. Euh, jërëjëf ni ko Serigne Moustapha waxee rek daanaka matale na lépp. gis-gin si amoon nag euh, ñi ngi ko ciy gis saa ne ndax danoo bokk ci ndaw yi nga xam ni danoo war a mën a defar danoo war a bokk ci ndaw yi nga xam ni danoo war a mën a gilli danoo bokk ci ndaw ñi nga xam ni waruñoo dégg ci loo xam ni saa su ne danañu xeeb wala ñu nu duñu nawloo euh, ki ni fàttaliku nag liñ ci jublu mooy. yaakaar naa ni kon ne ku ne xam na ko wala ku ku jëflante wut moom tamit dégg nga turam ci ni mu daan doxe ci ni mu daan jëflanteeg doomu aadama yi ci léppam bàyyiwul dara ñun nag jikko yooyu nga xam ni wóoluwunu ni dañuy bokk ci njabootam déedéet danoo war a bokk ci ñi nga xam ni dañuy dem sàkku ji ci li nga xam ne moo nekk ci moom te yàlla def ko ko ñu jéem a topp ci yoon woowu. loolu moo waraloon ci ndigalu suñu waajur xalifab sëriñ Aliou Diouf si sëriñ Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak njabootu sëriñ Aliou Diouf Lambaye yëpp euh, bi ñu amee ndigalu sëñ bi depuis bi nu ko defee euh, tàmbali ko ba ren di septième édition bi ñu daan si ànd ak communauté pilotage bi yi nga xam ne présenté nga leen léegi am na jot ñu taxaw di si liggéey ngir feeñal jëmm jooju di Serigne Thierno Diouf Lambaye ngir xam solo si bis bi daal la ko tax a jug mooy ñaan bisu fàttaliku bis la boo xam ni war na noo xam gën a xamaat kan mooy Serigne na Diouf Lambaye koo xam ne dund nga ba am téeméeri at ak fukk ak juróom te biñ fi nekkee ba léegi mosoo mosoo mosoo naax sa kurus ak sa ñaan ku ñëw nga dimbali ko ci la nga am eh, dimbali ko ci daraja ci ci alal dimbali ko ci baatin dimbali ko ci ñaan kon kooku eh, ku roy ci moom nit ñi war na noo xam roy ci moom eh, lu jagan la te loolu nag jeexu gu moo tax jàpp na ni journée bii ñuy def la ko tax a jug mooy lu mel noonu woote fàttali ko jëmm jooju sëñ Thierno Diouf Lambaye waxtaan si jukkoom ndax ñun ñëpp képp koo xam ne jullit nga rek war a mën a roy ci lu mel noonu. loolu moo doonoon sabab du bis bi euh, wax dëgg yàlla ndax kenn ku ne euh, am nga ak jaar-jaar. foo xam ni tey yaakaar naa ni war nga faa mën a wane ci la nga doon ñun nag fi nu yàlla féete moo tax saa su war na noo mën a xejj wala wane ci loolu ñu bokk daal loolu daal mooy gàttal bi. Mm. bésu fàttaliku nga woote jëmale ko ci sa mm. a a loo a fàttali. waaw loolu li nga wax lu am solo loolu bari na moom dafa bari loolu ndax bu ma nee benn rek mën nañ ko see jël jël bi mooy li ëpp ci njariñ ci doomu aadama mooy daan na wax naan man de nit du ñëw fii mukk di ma laaj ba ma ne ba ma ba ma neenal ko ñu ne ko lu tax mu ni yaakaar ja fa muy jóge fa nit ka ju jóge xelam dëbut ci kenn ku dul moom mu tañax tañaxi ñëw ba ci yow nee la damaa bëgg nàngam te fëjaloo ko nee na loolu moom maanaam daana toog naan loolu loolu loolu moom yàlla bindu ko mënul lu mel noonu moom loolu day fane ni kon benn ci gàttal boo koy boo doon wër sax bari na waaye lu mel noonu rek nit ñi war na see mën a roy ci koo xam ni lépp lu mu am rek bokk na ko doomu aadama yi nit koo xam ni da nga ñëw feebar wala nga am jàngoro joo xam ni kenn xamul nooy def nga ñëw mu ñaanal la ba suñ borom tegaat la ci yoon woowu kon kooku war na noo mën a royaat ci jukkoom wan ni ñun kat war na nañoo mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ndax doomu aadama yi fi nekk mbindee fi yàlla yi te yàlla moo leen fonk kon ñun lépp lu nu man ci lu baax ak lépp lu nu mën ci xettali doomu aadama ñu koy taxaw kon benn ci gàttal boobu rek mën naa mën naa see jox benn benn benn solution boobu.